moom Cheikh Mamadou taxa mi nga xam ni moo fi Sëriñ Tuuba te it lépp ñu jaare ko ci moom ba am ci ndigalul moom ndax yaakaar naa ni su fekkoon luy lor la yaakaar naa moo ñu gën a xam suñu bopp moo ñu gën a ëpp yërmande konoon fekkee loraange la kon yaakaar naa ni du ko nungul kon nag ginnaaw ba nungul na ko autorité yi ñun duñ def lu dul ànd ci ndaxam dëkk bi tamit am na nu bindoo noo xam ni xëy na ñëpp ñu ëpp mënuñu seen bopp tey nag yàlla si boobu àdduna moo ko doxale noonu waaye nag ci at yi ci ginnaaw dafa am lu Sëriñ Saliou Mbacke jàngaloon ci àdduna ak àllaaxira ndax ñoom ñaar yëpp la boole ndax Sëriñ Saliou Mbacke de waxoon na ni nit ki ñaari biir la am sa biir bopp sa biiru bàmmeel sa biir bàmmeel sa biiru bopp bii li feeg yaa ngi dund da koy bàyyi ak suñu borom suñu borom mi la sàkk sa suuf dina wutal loo ci loo ci def sa biiru bàmmeel bii te yow si boppam nga farlu ca te jëmale ci bopp te it nag naam metti na marché bi nga ko tëjee juróom-ñetti fan naam dina metti waaye nag sama xam-xam bu gàtt tëj ko juróom-ñetti fan moo gën tëj ko juróom-ñetti weer ndax olof jaay tamit nee na bala nga ne naam da nga fay nekk te nag ñun li ñu dog li ñu waa kër docteur yi digal te nga xam ñoom la suñu boroom dénk sayir si ñu yor ko loolu dañ ko war a def nit ki nag su la nee defal nàngam doonte gëmoo ko soo bëggee boo jàkkaarloog moom bu ëllëgee doo am aw lay dangay ngay def lam la wax su ne lee lii mooy baaras bi masque bi nga toog def ko mun la def ko nàngami fan defal nàngam nga def loola yàlla mi nga xam ne mooy dogal ci xam-xam boobu suñu borom def ci sutura feebar bi arrêté su fekkee yàlla defal ñoom ci boppam bala ngaa weddint ki boo toogee juróom-ñetti fan lam doon wax amul soo boobaa di nga amaw lay ci moom waaye nag doo mel ni man xaadim gi mi toog jàngoo sa amoo sa xam toog naa nii dañuy wax dañuy naxe dañuy naxe te nag ñu baal ma ci ñi ma war a wax nag waxuma kilifa yi waxuma ak sëriñ si man suñ mbokki taalibe yi nga xam ñoom laay waxal nan gëm ni sëriñ Tuubaa ak ruu lay defar ruu lay defar yàpp yaram bii suñu yaram yii ñun ñoo ko war a sàmmal suñu bopp suñu feebaree ndax day dem si hôpital yi faju docteur day dem day ne hôpital kon nag lan ñoo ñooña di wax te yàqul suñu diine yàqul suñ ngor yàqul suñ lislaam amul lenn lum ñuy baare loola danoo war a sàmmante ak loolu def ko moo gën noppa sa bopp ndax maska maska kilifa goo gis kilifa yëpp tey kilifa goo dem tey fab nag kaalaam laxas ci bopp ñee ngi toog seen kër yi ñun ñi nga xam ne ay bi la di yaxantu ci marché bi ñun nan def masque suñu defee masque ci marché yi ci jaaykat yi fa ñuy jaay fa ñuy jëndee yaakaar naa ne suñu borom mën nañoo def sutura ñu delluwaat suñu marse liggéey ku nekk xam na ni yëpp la metti te économique bi wóor na la ni dinañ ci daan daan waaye nag économiquement dafa am ñaari façon économique économique boo xam théorie lay doon économie pratique muy réel tubaab yi nag économie bi ñuy indi daanaka lu ci ay théorie lay doon réalité bi mooy lii nga xam ni mooy Tuubaa dañuy jënd di jaay li ci ëpp suñu mbokki bawol di ko def nga xam ne bu bu la amee dërëm dinga xam ne dërëm nga am boo amee ñaar dërëm di nga xam ne ñaar dërëm c'est réalité waaye nag li gën a am solo daal ñun suñu taxawaay buñ jàpp ni ñii dañuy xeex wala nag buñ def nan xam ni liñ ñu digal nan ko def suñ ko defee yaakaar naa ni tey dinañ mucc man de wax dëgg yàlla bokk na samay xalaat mooy xëy na metti na ndax mënoo toog xëy na ku mel ne boo toogee di wax naa nan tëj nan tëj danaan am nga ko déedéet noonu man su ñëpp suñ sañoon te ñëpp day doolu seen liggéey ndax man am naa sama place boo xam ba mu ko tëjee si martel yi mat na ñaar fukki fan te ñu bari dañ ci daa aju di ci def li wax ñu bari xam nañ ko waaye nag kii xëy di yaxantulu li tax yërmande jooju suñu meloon ni tubaab yi nga xam ne seen lépp mat na am na xaalis am na àll kon nan nañ leen tëju ndax feebar feebar nit ki balaa gañe dara day wér ndax boo amoon sama semence di jaay kecax wala ngay jaay saabu wala ngay jaay na wala yori magasin te wéeroo sëñ bi doo fa dem ah na nag man daal suma sama sago mooy ñu góor góorlu muñ fexe li nga xam ne moom lañ docteur yi def te suñ diine may ñu ko yàqu ko yàqu suñ ngor yàqu suñu taalibe ñu def ko génn ci yàlla suma defuñu sutura ndax sëriñ Tuubaa lan yaakaar waaye nag nan sàkkal sëriñ Tuubaa lay ndax mag ñi fi nekkoon kat muy mag ñi mag ñi kenn nattablewul woon seenu taali bi seenu ru fa àgg yàlla na waaye boo xoolee ci histoire tubaab mu leen a yàpp mën naa si sama mel ni Cheikh Ibrahima kenn gënu ko woon a àgg ci yàlla kenn gënu ko woon a gëm sëñ Tuubaa tubaab yi lam doon jëf laan ko respecté woon nan ndax dëkkoon naa ñoom ndar dëkkoon naa ñoom ndar dë dëkkoon na dëkkoon na Cees waaye kon respecté woon la ci loolu séq ci wàllu adduna mu nite lool kon nag loolu yi dañ ko war a jàng si mag ñi ku mel ni maam Thierno ku nekk xam na ni ku àgg ci yàlla la ku matoon lim doon la waaye amoon na nit goo xam ni kenn nitu adduna mosu koo yab ndax lam séq ak yow ak la mu warloon te yow dina ko def ba mët sëkk kon nag ñun taxawaay boobu la ma taxaw man de mooy sama gis-gis actuellement ñun waa Touba diggalu ma nag kilifa yi sama mbokk commerçant yi ak sama mbokk yi nga xam ñoom laa ñoom lay waxtaanal wax dëgg yàlla man sama bopp laa ko tàmbale place yi bi ma nekk mooy société yi ñu nekk ñun de jël nañ ay mesures képp ku fay dugg di nga takk mask sel baa nga fa nekk ndax vraiment man daal su ma sañoon ñu am lay mu jeex ndax métt na ci ko am métt na ci ko amul ndax boo dee taalibe bi gis sa moroomu nawle ku nekk xam na ni jamono ji métti gis sa mbokkum taalibe mu taxaw wóor na ni kii am na jafe-jafe àdduna lu la yàlla dimbalee ak lu mu la man-man gan doo dëgg dëggal xol sa yaram dina daw te it dina metti ci yow ndax bis wasi di nga recevoir ay nit yi nit ñoo xam ne gënoo leen ci juddu gënoo leen nekk ay taalibe gënoo leen nekk ay jullit suñ borom ci boppam moo la dimbaleegun jox la te loolu amoo fitu door koo téye bañ ko bokk nit ñi man daal damay ñaan ñu sensibiliser nit ñi feebar bii nga xam ne sëriñ Muntaxa taxaw na génn si rajo bi wax ne jumaa yi nan wàññi mbooloo mi lu mel ni Kazu Rajab lenn ko gën a màgg ci yoonu murit boo ne benn doo ne ñaar ñoom ci boobu ñu ñu waa kër seen Cheikh Mouhamadou Fadal yi jël seen responsabilité ak ni Kazu Rajab toll ak ni mu demee ñu woyofal ko wax ne ku ne toog si kon rawatina marché njaayu marché. kon ñu ñu war na noo am ay tegtal daaru mumti noonu ndax bis ba Sëriñ Tuubaa dajeeg maam Cerno benn bis bu gën a màgg amul kon nag loolu ñu ñëpp war na noo xool ca loola xam ni lépp loola moo gën a kawe li ñu nekk te ñaan yàlla sensibiliser daal ñu jeexal benn yoon ñu def ñu ñu ñu jéem daal mobiliser wu am solidarité jàppoo nekk benn ànd ak euh, docteur yi ak li nga xam ne moom lañu kilifa yi wax te nag jox cirit autorité yi surtout nag police yi nekk Touba ñun waa Touba nañ leen jox gëdd ak gendarmerie nañ leen delloo seen wax ak gëdd tey dëgg lañu wax ndax duñu suñu ennemi bu ñuy sonn guddeeg bëccëg di di daw di ñu wax su en su njariñ doo bopp dong la te ay nit lan ay njaboot lan ñoo xam ne dañoo yor njaboot comme nekk ay njaboot suñu biir su suñu biir man daal wax maa ngi lancé daal ñu gën a ubbiwaat suñu xel gën a nite ci ñama ko war a wax xam ni lii du tubaab ba ci àll boo ñëw di ko digal ñun ko digal ay Sénégalais ay autorités lan yoo xam ne tey lu jafe-jafe bu am ñoom ñoom ma ko yokk duñu ay nationalité français duñu ay américain duñu ay anglais ay sénégalais te am na si ñoo xam ne ay taalibe lan wóor na ma du foofu musiba di ko indi Tuuba ndax ñoom ñoom moo àtte kon nag lépp lu ñuy digal ñoom dañ ca war a ànd ànd ak ñoom man daal sama mbokki Tuuba sama mbokki Bawol way tous les sénégalais ñoom laay lancé ñu jàpp ci lii te xam ne suñu njariñ képp